di jaajëfal bépp jëmm joo xam ne yaa ànd ak ñun ci biile jotaay bu tedd nga xam ne dañuy jël téere borom bi subhaanahu wa taala di ko jàngat waaye di xool magi démb nan lañ ci ko daan jàngate ak nan lañ ko daan dundee waaye ak ñun lan moo ñu ci war di nuyu bu baax tey jaajëfal Lo multimédia ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy ànd ak ñun ci jotaay bii di asalafu maal quran te ñuy jaay lépp lu jëm ci électronique fële ca sàndaga nga xam ne ku woote ci numéro yi di nga leen jot insha allahu taala tey nag ñu war a andi suñu ñeenteelu tomb ci jiroom ya ñu leen waxoon ne leen képp kuy jàng alquran fexeel nga teewlu yiilee jiróom nga daal di ko yéene althawaab alchifa al ilm al amal tey nag mu nekk ñeenteel bi al amal bii di ñëw mooy nekk al munajat ngay jàng alquran jublu ci al amal al amal jëfe alquran la ilaha illa allah muy lu tumuranke muy lu tumuranke tumuranke lool suma ko waxe xamna ci dara yen ñi xam ngeen ci dara alquran nit ñangi gor gor lu diko jàng waye jëfe bi mom mo dess lol lol lol lol ali ibn abi talib dafa waxon nan ya hamalat alquran wa fi riwayah ya hamalat alilm ilm ñi nga xamne yene ñoñ alquran fële mu ne yen ñi nga xamne yene borom xam-xam yi mu ne al ilmu xam-xam mooy la borom jëfe la nga xam nga daal di koy jëfe mu ne loolu moom mooy xam-xam te ba pare la nga xam mu maanaam xam-xam ba daal di dëppoo ak la ngay jëfe sa biti daal di dëppoo ak sa biir doo nekk mukk di nëbbatu maanam mooy la waaje waxoon ne ngal la bul nekk ci kanamu nit ñi xiddiisaa soo nekk ci kanamu nit ñi yaay sëriñ bi fi gën yaa fi gën a rëy la yére yaa fi gën a guddule kurus yaa fi gën a jekk mbaxane yaa fi dàq werd yaa fi gën a baax su fekkee yaa seedaa bi yaa seedaa bi noonu waaye saa yow wéetee inda al xalawaati iblisa saa yow wéetee yaa raw iblis ali ibn abi talib lii la wax li ngay làq ak li ngay feeñal ngal la na de na doon benn na dëppoo ali ibn abi talib mu ne jamono ngi ñëw di nga gis ay nit ñoo xamante ne ñuy jàng di wote wa alquran waye jëfe mom zéro zéro zéro jëfe dara yubahi ba'dhum ba'ta ku ci nek di wu ci sa kaw morom mala ëpp li mala ëpp li mala ëpp xam-xam mala gëna rafet ay yére mala gëna baxlé a amna auto amo auto amna kër amo kër ku nek di ndamu ci sa morom nee dañuy dem bay xëccoo ay ndong ci ci ci daara yi manam di xëccoo ay ndong ci xalaqaat yi comme xalaqaatu dikri yi nam daan amee mën nañ koo tekkee léegi soppe <laughs> ku nekk naan diw sama soppe la sa soppe soo déggee sax muy muy wax téléphone ak keneen wala nga gis ko ci groupe bu jàmbur sax nga daal di koy mere wala nga mere kooka laa <laughs> ilaha illa allah ali ibn waxoon na lii nee na dañuy dem bay xëccoo ay ndonga ak ay soppe nga xam ne sa soppe soo ko gisee ci jotaayu keneen nga daal di koy mere waaye mere kooka لا إله إلا الله قال نانيو جانغ نانيو جانغ تكس يانغي في دجيخ الكتب كالبحر الكتب كالنجوم عد الحصى نانيو جانغ تيري نانوكو جانغ نانوكو جانغ موي تخنيو تك فنيو خم فنيو تك سنيو تانك bari nañuy wote wo borom xam xam ak oustad ak ya sayda so xole nañuy doxale nga xamne gatt xam xam rek ko waral nañ ma bal gatt xam xam ko waral kon nañu jang ki nga xam ne mooy xasan al basri rahimahullah mooy xasan ibnu yasaar dafa waxoon ne umira annaasu an yaamalu bilquran fattaxaduu tilawatahu amala mu ne nit ñi seen borom daf leen digal pour ñu jëfe alquran ñoom nag ñu daal di jël jàng alquran jàppee ko jëfe maanaam yem ca pour ñoom daal jàng alquran rek mooy liggéey bi alquran da nga koy jàng waaye fas yéene koo jëfe كوم نيغا خامتيني نوني لا حسن البصري وخو تي بنين آه، مقاله من صحابي اي الذين كانوا قبلنا نيوم دانيو دون جابي القران رسائل من ربهم دانيو جابي القران اي مساج مانام سا تليفون نيموي سوني مساج تي ساسي غا خول كولكو يوني نيوم نوني لا جابي وون القران كانوا ايه يتدبرونها بالليل غودي سوجوتي نيوي تامبر القران ويتفقدونها بالنهار بتشك سجوتي نيو كو جيفي كيم تلاي كتن حسن البصري وح رحمه الله تعالى ابو الدرداء رضي الله عنه دفا بيني بس بيني واي دادي نيو منكو يا ابا الدرداء يا ابا الدرداء منكو ان ابني هذا قد جمع القران mu ne ko sama doom ji de dafa mokkal alquran sama doom ji mokkal na alquran abu darda ne ko allahumma gafara yàlla maa ngi lay jéggalu yàlla jéggal ñu jéggal ñu abu darda daal di tourné xool waa ji mu ne ko innama jamcu alquran man samica wa ataa xam nga kan moo mokkal alquran mu ne mooy ki déggal alquran daal di koy topp la hawla wala quwata illa billah mu ne ki déggal alquran daal di koy topp kooku moom mooy ki mokkal alquranul karim kon mbokk yi an taqra alqurana xaqa tilawatihi ngay jàng alquran maanaam dëggi-dëggi jàngam la mu yelloo mooy lan an tuxilla xalaalahu wa tuxarrima xaraamahu kama ind kama ind ibni ibni masud comme ni nga xam ne noonu la ko abdullah masud waxee radiallahu anhu nee na nga jàng alquran dëggi-dëggi jàngam mooy lan ngay jëfee digal ya waaye di bàyyi tere yi di ko wax ñëpp ñëpp a ngi góorgóorlu di jàng alquran ñëpp a ngi góorgóorlu di déglu alquran waaye nañu góorgóorlu jëfe alquran alkarim kémte lay kattan nañu firri alquran gi xam lan la ci suñu borom jublu saa borom yàlla ñu daal di koy jëfe kémte lay kattan di wax qurraa'u yi di wax sëriñ daara yi njëkki ko ci suma bopp nañu góorgóorlu jëfe alquran di wax képp koy topp ci jotaay yi lépp loo xam ne digle la ci alquran nañu góorgóorlu daal di koy jëfee lépp loo xam ne tere la ci alquran nañu góorgóorlu daal di koy bàyyi bés ni ki tey ku daanul def loolu ñun ñëpp nañu tuub dellu ci yàlla wa tuubu ila llahi jamia na ñu ñëpp tuub dellu ci yàlla buur bi subhanahu wa taala ñu ne bés ni ki tey daanu góorgóorlu jëfe alquran waaye daanu góorgóorlu bàyyi li nga xam ne moom mooy tere yi alquran yi di jàng alquran te doo ko jëfe loolu wax dëgg fi yàlla nekkut lu wóor nekkut lu wóor mag ma dafa wax ne ki gën a yell ci alquran gi muy Xasan ibn Ali mooy dafa wax ne mooy ki ko jëfee te jàng ko kon loolu moom moo nekkoon suñu jotaay asalafu ma alquran ñu ngi jaajëfal képp koo xamante ne teewlu woon nga jotaay bii ñu ngi nuyu bu baax a baax te di leen fàttali loo multimédia fële ca marché Sandaga ñuy jaay lépp lu jëm ci wàllu électronique ku woote ci numéro di nga leen jot ma kaana min sawabin fa min arrahmani wa ma kaana min xata'in fa min nuqsaani salla ilahu ala nabi wa alihi ma labba mulabbin aw tahallala muhrimu assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh